Vous nous écoutez sur le www.radioalfaïda.net. Alfaïda c'est la référence. juróom ñeenti waxtu ci suba gi nag jot na ca taaxum kaw ma ñu duppe Cheikh Imam Assane Cissé bokk yi asalaamualeykum dalee nag jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës nag bokk na ci askan wa yeewoo ca Mbadakhoune ak tund ya ko wër jamono ji nag mer ba futt rek la ñu daal di def gannaaw ba nga xamee ne ñàkkum ndox mu taratar moo leen di bëgg àllaw ci ko ni ki démb sax nag amal nañu rek ab doxub ñaxtu ak ji ba ca préfecture ba fare foofee nee nañu nag daañu amal la ñu solution ngir itam daal di fay jëlee kër gi di flex o nga xamee ne dafa tëlee lu ni mel daañu ca dégg Cheikh Tidiane Diagne ci jël benn xibaar yi mouvement bi takkee élève ak étudiant yi ci franco arabe bi te faree fii ci Sénégal ñoom itam nee nañu rek jamono ji seen boolu mu ñu kaay dafa daal di fees gannaaw ba nga xamee ne nag ni état bu Sénégal bi ay digg dul jeex la dëkkee ak ñoom la ñu bëgg nag jamono ji sax mooy rek ñu jox leen seen i àq ak seen i yelleef Moctar Fall ma ko jiite moom itamit daañu ko may nopp ci ndimbalal noi bi yaay Eh, gannaaw kàddu yi nga xamee ni waa collectif aar Kaolack daal dinañu koy yëkkati nag ci mbiram boulevard de la liberté bi eh, ñi nga xamee ne nag ne ñoo daal di ngànk rek commission domaniale bu mairie bu Kaolack bi ñoom tamit daal dinañuy tontu indi ay leeral boole ko gi tamit nag di wax ne ca geneen wàll ga daañu porter plainte nag ndaxte dañoo eh, diffamé Serigne Mboup maanaam daal dañu ko jiñ tuumaal ko moo ko njaaye mbaw tàll loo xamee ne amul lu ni itam daañu ko yaatal ci biir xibaar yi reportage koor gi nag tey jii ma ngay waxtaane la ñu tuddee nag suukaru koor suukaru koor googee nga xamee ne sax ne mbaaxu maam la woon da daan rataxal ak rafetal sëy yi waaye tey jii nag ma nga tàmbalee jur ay jafe-jafe ci diggante sëyu kujje wujju peccorgo ba ci goro yi lu ni mel yi tamit nag ponk bu yaatu yaatu lay doon ak Alioune Badara Diop bu li lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram yóbbalu koor geegu Oustaz Mouhamed soow toftal ca kooru Gaye baax a Diop jeexale ko ni ci yéenekaay yi kon ponk yaa bu bàkk bi daanoo ñu yàttal Le journal Ngoné Ndiaye Reine ci kaddu gi euh, feggo ceek Codou Seck madame Kénémé ci wàllum xarale gi dal leen ak jàmm ci bile jotaayub xibaar dañu koy dooree nag ak jafe-jafe askan wi forage ba mënatul dajal ndoxu teen mooy itam nag mënee su koy naan nelawatuñu guddi ak bëccëg lii lépp nag mooy la ñuy dund rek ñoom askan wa yeewoo ca mbadaxun ak tund ya ko wër ni ki démb sax nag amal nañu rek ab doxub ñaxtu ak ki ji ba ca préfecture ba toogaanu fa Cheikh Tidiane Diagne. Coof excitation jàpp ngaan bi nga xamante ne mu ngi ci biir commune u Kaolack barab yi yëpp la nit jógee ko woon ñu wutali fi nga xamante ne moom moo di sous préfecture bi nekk ci biir commune bu Mbadakhoune askan wi nag dara jaaxalu leen lu dul ñàkkum ndox goo xamante ne ñu ngi koy dund boobaak léegi ay at te benn kilifa yeyul yàbbi ci tax na ñu amaloon janoo ak taskatu xibaar yi ci buntu barab bi nga xamante ne nguur moo ko fi teg. dañuy woote ba suñu dënn yi di métti ñun sonn neen ku ñu dimbal si ndox daal moo gën soxla ndox torop ndox trop sanguñ naanuñ togguñ ñu ngi si teem yi rek amuñ dara sonn neen suñu dëkk yaa ngi métti jamono ji tembe tembe nag mar mu tar moo leen alawtikoo seen i gune ak seeni i jur sax am na ñoo xamante ne ñu ne ñàkk nañ ci seen bakkan ndax ndox mi nga xamante ne moom la ñu gis ci seen teen yi mëne su koy naan bu ñu sukkandekoo ci beneen jigéen bu jël kàddu ci dox bi ñu doon amal ci mbedd yi ay mbedd ak ay siyo yi dagg ay bant ak yëpp ang fi ñu ñu bu bu ñu ñëwee di si suñu doomi mi di wax yow gis feebar si ne ni hôpital laa jëm nii dañoo sonn nañ ñu dimbale si ndox ndox mooy nit waaye jël ndox daal di neen ñii ñooy am ñii duñu am c'est pas normal du dëgg joxoñ nañu baaraamu tuuma maire bu Mbadakhoune di imam Assane Marone ak ki nga xamante ne moom moo di Pape Malick Ndour président conseil départemental bu Guéguinéo ñu ne nag yeyuñu yàbbiwuñu defuñu dindiwuñu ci jafe-jafe bi nga xamante ne yëg nañu ko actuellement vraiment nous attirons l'attention des autorités pour qu'ils puissent nous venir en aide askan wi nag bi ñu ñëwee fekkuñu fi ki nga xamante ne moom moo di sous bi waaye nag ci buntu barab bi la ñu amalee seeni kàddu dox bile ay directeur école sëriñ daara yi meeru mbootaay yi ak jeunesse bi ñëpp ci àndoon doonoon mbooloo mu takkoo takkoo ci mbedd yi nekk ci commune bu Mbadakhoune bi ñu wax ne seen forage bi fi mu ne mënatula dagal ñëpp. des milliers de familles des milliers de familles. ñu laa nem seen gaz est ouest Kër Belel. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne dañuy des ba tey nag ca googu leen mbir délégué de quartier bu Saara Bana itam nag ma nga woon rek ca toogaay boobee moom nag dikkaat na ci jafe-jafe yi coono ga ñu jànkonteel boobaak tey jii nag ëpp na ñaar ci ay weer te loolee nag dara waralu ko lu dul ñàkkum ndox mu a tara tara Mamadou Diallo ko Cheikh Tidiane Diagne. depuis mois de décembre sama robinet indiwul benn toog. waaw waaw ci coono boo xam ne. coono bu tar la. amatuñu ndox dañoo root ba seen la koy yàqu xam nga loolu du jàmm loolu moo fi ne mooy suñu jafe-jafe dañoo sonn trop suñ dënn yëpp ubbi te jigéen ñaa ngi nii fu ne ñuy dem fu ne la ñuy dem dañuy dem yenn bidon yi di wor ñëw fii ñu ne la amul ndox nga ñëw ci benn kër ñu la dañoo tej loolu yëpp mu ngi fi dañoo sonn daal waaw coono bu rey la ñu jànkoonte dañoo bëggul léegi ñu indi ñu ndox parce que dañu ne woon waa flexion ñëw fi indi ndox waa flexion ñëw nañ fi mais mënuñu fi defar dara seen tiwo du indi benn tokk ndox loolu la ñuy jàmbat mm. wax nañ ba sonn démb lañ ma mujj a wax ne naka mu ndox ñëw na ma ne leen man de gisuma dara mois de décembre ba léegi gisuñu benn tokk ndox ba léegi man de sama robinet indiwul dara te keneen it noonu ñi ma jaxtal noonu xanaa teen yi jafe-jafe rek ak jënd ndox dinañ dem ba kaw sara di uuti ndox day dem ba kaw sara di uuti ndox léeg nga ñëw ci teen ñu ne la amul wala nga fekke borom kër ga teg na këram xam nga loolu métti na loolu la ñu dànkoonteel Mamadou euh, Diallo euh, jafe-jafe yooyee nag lu ca jin jaaga rek kër gi di Flexo moo cay njàkk ndaxte nag dafa tële ci wàllum séddale ba ndox mi te moo ne day kilifa yi yëg nañu ko ba noppi defuñu ca dara ba tax na sax ñoom ñu ne daal daañu amal rek ab pétition ngir daal di fay jëlee kër gi di o Flexo Mamadou Bassirou Seck mi ngi ci micro Cheikh Tidiane Diagne. diggante Flexo la ak Ofor ak Sen'Eau même na aussi Flexo dafa installé ay tuyaux ba pare mënta ravitailler population bi en eau te mënu leen ravitailler ba pare nag nanguwul nag Sen'Eau ñëw jël milieu ndax ñoom dañ ne fii c'est un état bi ñoom ñoo ko ñoom ñooy gérer affaire bi te pourtant ministre bi bindoon na le directeur de l'OFOR nekk il faut régler le problème de Mbadakhoune mais ba léegi rien n'est c'est le statu quo rien moo tax population bi nag actuellement bindoon nañ fi rencontré nañ fi on a fait des ampliations au niveau de la préfecture au niveau de l'OFOR mais actuellement c'est le statu quo rien jusqu'à présent comme si vraiment les gens sont en train de saboter tey ñu nekk de la préfecture pour manifester notre mécontentement nit ñi daan ñuy dégg problème bi ñu fexe ko saafara pétition la ñuy def ndaxte nous sommes dans un état de droit un état organisé nous allons préparer une pétition pour faire évacuer définitivement la société Flexo pour permettre la CNO de s'installer définitivement loolu moom vraiment c'est une vieille histoire quoi très sincèrement na aussi xam nga Sénégal rek li fi nekk ñi nga xam ne nii seen loxo jot na gannaaw su ñëwee ñoom dañuy dugal si non aucun problème mais ñi nga xam ne nag ñoom peut-être bon ay néew du doole ah il se faut beaucoup d' argent fii du milieu rural il faut nit ñi daal koy xam ndaxte c' est à deux doigts de la commune de Kaolack c' est inadmissible vraiment ñu naan fii milieu rural mënta nekk ndaxte li am Kaolack lépp mi ngi fii loolu ta nekk quoi ta nekk ka doon addu noonee nag mooy mu Mouhamadou Bassirou Seck di kenn ca a nga xamee ne ña nga dëkkee ca Ñoolaanem Est ñeneen itam ñoo xamee ne bëgg nañu rek ñu dégg leen te taxaw ci seen ay jafe-jafe du ñenn nag ñu dul rek mouvement de élèves et étudiants arabophones du Sénégal junjoon naa leen ko ñoom nag nee nañu jamono ji dañoo tàyyi sonn ci état beeg ay digeem yi mu dul a wàccool waaye tamit nag dut nañu baaraam kumba am ndey ak kumba amul ndey gi nekk ci système éducatif bi Mokhtar Fall moo leen jiite mi ngi ci micro Noabia yi. liy dëgg bay dëgg mooy ñun nga muñ benn yoon diggéem yooyu muy joxe ndax jiitu na tey mu joxe ay digge yu mel nii di ñu ko dikk di ñu ko neexalee booba léegi gisuñ benn benn ay njureef yoo xam ne tukki na ci digg yi muy digge lu ci mujj rek ñu ngi doon joxe benn communiqué ci conseil des ministres ñu ne état bi dana taxaw benn bureau boo xam ne day jëm ci lépp lu jëm programme wàllum supervisé ay dépollution ay wàllum aidé coordination yu kenn xamul lu jëm ci ay programme arabe ak programme daara ak ñi nga ay boobu depuis janvier 2021 ba léegi gisuñ ci benn benn résultat gisuñ benn njuréef ba tukki na ci diggam yooyu te loolu yàgg na ko def en tant que mouvement des élèves étudiants francophone bu Sénégal bi Fass liñ jéem a nax ñu jéem a bëri toll wala boog ministre yi nga xam ne ñoom lay jox ndigal li pour ñu war ko jëfe joxoon benn intérêt joxoon benn yitte lépp loo xam programme arabe la wala programme boo xam ne dafa jëm ci ñi jàng arab loolu nag ñu ngi koy naqarlu naqarlu bu baax ko séddaloo askan bi yëpp ne dëgg-dëgg discrimination bi nga xam ne si moom la ñu dund état bi ci boppam mu xool politique bi nga xam ne moom lay def ak ñi nga xam ne jàng arab ci réew mi doon na sëkk état changé manière bi muy def ak ñun ndax kat nga xam ne dafa am solo pour ñu xam ne ñun si dañoo bokk ci société bi fii lañ juddoo fii lañ màggee fii lañ yeroo fii lañ jàngee kon nag même droit yi nga xam les jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo tànn beneen façon formation bu différent ak arab ak ak yeneen yooyu ñu am ak yooyu lañ am ñu euh, des ba tey nag ci jafe-jafe yi jógee nag ci wàllum njàng mi daal di tàbbi rek ci li nga xamee ni moo di coowal suuf équipe municipale bu yees bu Kaolack bi ak commission domaniale ba mu samp ñoom nag jamono ji taxaw nañu temb rek ngir joyanti lépp luy jafe-jafe ci wàllum suuf fii ci diwaan bi commission boobee nga xamee ne sax ne bu ñu sukkandikoo ci Sandem Touré ma ngay wax ne ay boromi xam-xam ak i kàngam ñoo ko daal di seq ba tax na sax ña ngay dalal rek xelu askan wi jëmee ci fànn wi ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. comme ni ngeen ko gisee rek liggéey boo gis rek dañu naan nañu dolli mbir ma nit yi peut suuf si ñu am ci ay jéego di ci liggéey ak commission bi nga xam ne dafa am composition bu doy waar bu am solo ñu am nañ fi notaire am nañ fi géomètre expert agréé am nañ fi comptable am nañu fi ñoo xamante ni dañoo am ay xalaat yu xarañ jëmale ci suuf ñu def composition boobu nag am liggéey bu ñu nekk di def ñu tuddee ko état des lieux si état des lieux boobu lépp loo xamante ni titre foncier wu mairie bi la danañ ko saytu danañ ko topp te maire dafa am ay prérogatives pour faciliter population Kaolack ñu gañewaat seen confiance ci seen suuf xam ne ko moom askan bee ko soxla leeral yooyu noonu moo tax commission bi taxaw dinañ ci dox ni ñun nañu njëkk a suñu bopp. te technicien boo ko joxee liggéey wutul lu mooy ay référence mun a rassuré population bi dox nañ ci ay jéego fekk dinañ contentieux yi ni ñu toll waxuñ ne dinañ ko régler yëpp waaye dinañ ci dox ay jéego ba rassuré population kaolackoise fu waay mun a ne am xelaat ne suñu suuf danañ ko tegaat suñu loxo mu jaar yoon lépp loo xamante ne doublon wala leneen la dinañ ci am ay proposition mun suñu doyen yi nga xam ne xam nañ ci lu bëri muy doyen Gadiaga ñëpp xam nañ ko ci xarañteem ak doxalinam yëpp dinañ ko àndi ñu nekk collaboration ak ñëpp ni bëgg nañ ko am këyitu suuf ci Kaolack na nga ñëw fekk si commission bi ndax dañoo war a doxalin ay doxalin yu bees yoo xam ne pour régler problème contentieux suuf la suuf nag képp ku ko wax contentieux la un peu partout dans le monde coow li am ci àdduna yëpp suuf moo ko waral kenn mënu ne am na saafara ba mu tax commission bi taxaw dañuy euh, des ba tey nag ca googule mbir nga xamoon ne itam nag ne bokkoon nekk ci ponk euh, xibaar yi euh, bu dee nag ci wàllum boulevard de la liberté bi muy fa nga xamee ne garage Dakar bu njëkk ba fa la nekkoon euh, coow li mu jur ak it nag la ñu ca doon jébaane ki nga xamee ne nag ne moo jiite boobule commission domaniale bu mairie bu Kaolack bi moom nag la mu def rek mooy ne tontu du forox ndaxte indi na ci ay leeral ànd ak di wax ne sëriñ bu ma ñu ca tudd ak njaayam mbawtaal loolee nag duñu ko bàyyi noonee ndaxte itam daañu ko yóbbu ca kanam yoon Aïssatou Ba madame Seye àdduna ci ak Cheikh Tidiane Diagne dañ doon xam ne ne xëy na fan yi bi ñi nga xam ne nee nañu ñoom ñooy collectif riverain yi dëkk boulevard Bassirou Mbacké bi te monsieur Laat Babou di fa tabax ñuy wax ne di jiiñ monsieur Serigne Mboup ne a tabax foofu Serigne Mboup bi fekk na signé nañu papier yi ba pare waaw te foofu Laat Babou di tabax nekkul loo xam ne maire bi moo ko moom commune bi moomu ko état moo ko moom kon maire sax amul droit di ko joxe kon état moo ko jox Laat Babou loolu laay bëgg mu leer te tamit bu fekkee même sax bu fekkee ñëwee maire da koy signé mais nag le tel n'est pas le fekk ko fi woon kon tey jii bu ñuy wax nañu wax li nga xam ne moom moo nekk laat baabu foofu ñu ko jox mu koy tabax léegi dama ñoo bëggoon ñi nga xam ne ñoom ñooy kaas seen droit ni domaine wala cadastre ut fay ko jox ak tax muy construire tableau ba nag dañ fay bind autorisation premier avril mais nag booba la ko préfet moo tax mu def ko ci mais pas le maire autorisation bi loolu la maire teg na commission boo xam ne domaniale la pour maanaam leeral mbiri suufu Kaolack bi aussi pour yombalal nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a am acte autorisation de construire ñu yombalal seen mbir loolu tamit war nañ ko leeral ba mu leer di wax ne lépp kenn ku am loo xam ne dafa lay leer ñu wëñee ci maire bi commission bi dina la ko leeralal dañ ci wax nekk ñun dinañ def le nécessaire bu neexee yàlla maire amu fa adjoint maire amu fa te du dëgg leeral nekk benn. ngeen ñëw nii même pas en ay weer ñu teeru leen ak coowal suuf ci commune bi loolu euh, euh, xaw leen tiital tuuti ci affaire doomu ñaar. noonu mënut a ñàkk ndax suuf ci boppam moo am problème mais nag lu mën a nekk rek dañ ci def lu suñ kéem tolluwaay kattan ndax équipe bi mu fi teg ah, ñun yaakaar nañ suñu bopp du ñu tàgg suñu bopp de waaye am na lu ñuy bañ te aussi bu ñu fi jógee dañ fi bàyyi lu leer. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne matataan yooyu la kaddu euh, juróom-ñeenti waxtu ci suba gi nag jot na rek ba feggoo ko fukki simili ak juróom ca mairie boobee jàpp xàll wa jëm ca jumaay Medina Baye yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90 point 1 ñu euh, daal di euh, soobu nag daal di wax rek jëmee ci wàllum politique ab janoo nag la doon amala ak taskatu xibaar yi ngir tamit nag daal di wax ne ba jamono ji mu ngi ci coalition Benno Bokk Yaakaar donte ne sax ne boobaak léegi nag ma ngay liggéey ak waa coalition ànd nawle ànd liggéey moom mi nga xamee ne moo di Serigne Ousmane Niass nag ma nga yëgle ne itam nag ci législative yi nga xamee ne moom la ñu euh, dëgmal bu kenn yaakaar a nekk nag li nga xamee ne moo di tête de département bu Kaolack ci wetu Serigne Mboup ak it bannière mënti demee rek moom moom la ñuy euh, jiital waaye tamit nag daal dinay àdduwaale rek jëmee ci ay poñ yu euh, bare bari ci wàllum politique leeral gi ak Cheikh Babacar Dieng. Serigne Ousmane Niass mu Paa Ousseynou Niass ci Medina Baye nee na moom kilifa diine la buy def politique nee na ministre Mouhamed Ndiaye Rahma ba waaye bàyyiwut président Macky Sall ndax ci benn bokk yaakaar la bokk ba fi muy waxee nii message bii la envoyé njiitu réew mi di président Macky Sall. dama doon ànd ak moom ci yi ki ñu wax Modou Ndiaye Rahma bi may ànd ak Modou it waxoon naa ko ca njëlbeen avant ma koy génnee Medina ak Kaolack bi may ànd ak moom dafa am lu ma waxoon ci Kaolack wax ma ko ci Medina bàyyi gi ma dëkkee ma dem ba détecté ko xam ne la mu wax du dëgg ma sànni ko fa dem àndi ji ak nga xam ne mooy sëñ buub waaye diirab li may ànd ak sëñ buub yëpp maa ngi jàpp ne maa ngi nekk Benno Bokk Yaakaar te loolu laa fa doon incarné ba léegi fii may waxee ak ni yéen rek juguma ci loolu. coalition bu mu bokk tey nag di ànd nawle ànd liggéey président Serigne Mbuub jiite ko ñoom dañuy dem ci élection législative yi ñu dëgmal ànd nawle nag du bokk ci benn bokk yaakaar du bokkit ba fës ci kujje gi ndax duñu ànd ak waa yeewi askan yi ak yëre bu ñu mënta sol nag ngir dem ci fi ñu ñu fale député yi sëti bi moom taxaw na ne mooy tëddal liste départementale bi ci Kaolack pour dem ci législatif yi sëriñ bu ak ku man di ànd ak su fekkee bannière ànd nawle la ñuy demee wala coalition waxuma ànd nawle sëriñ bu képp ku man di ànd ak tëdd liste départementale man lañ ko jox pour ma nekk parce que ànd nawle mën na bañ a dem ñu dem ci beneen bannière buñ mën di dem man sëriñ bu laa topp moom laa ànd ak laay jàppalaat teg. dafa doon amal janoo ak taskatu xibaar yi ci capitalu Faydu Tijaan yi di Medina bàyyi waaye doon wax politique Abdou Ndiaye meeru Kër Maba Jaxu nag delloo nañu ko palaasam ci kanam micro yi. Abdou Ndiaye moom na dem Kër Maba mu dem gérer ji département Nioro bam dëkkee te ba Kaolack gi mu nekk di tappale li muy wax maîtriser wu ko di wax ci usine yi kawoon di wax ci li nga xam ne mooy kër de ville bu contrat bi jeexoon état daf koy jël cinquante hectares yooyu muy wax su fekkee ne lu sëriñ soxla la loolu commerce am na ko bu yàgg pour ñu liggéey ci kon nag Abdou dama koy wax ne ko yoon bi du yomb lu jëm nag ci marché Médina Baye bi nga xam ne ba tey ji la commerçant yaa nga ca marché xaar yàlla gisaguñ ko déggaguñu ko moom conseil municipal bi ne jot na njiiti réew mi dawal yërmande ubbi marché bi man waxtaan naa ak ñenn ci samay kilifa marché bi li ko tëj dawatul mbiri xeex ak njaay xeex Médina la ak soofantal Médina ak yàpp Médina Macky li daw sama yaram am na koo xam ne cantine bu mag la fi amee woon ci ñi gënoon siiw ci jaaykat yi la ci ay tablette neen ci la mujj président loolu yëg ko su fekkee mën nga koo dabi ak ñu bëri ñoo xam ne daw nañ ci naaj bi ba daanu marché Médina bi jot na pour ñu leeral ko pour ñu ubbi ko artu na nag responsable politique yi nga xam ne dafa jàpp ne dañuy jëfandikoo image yu Médina Baye ngir seen jëriñol bopp wax na ko nii ci zaahir waaye na bu ñu arrêté wul dana jëflante ak ñoom ci baatin buñ bàyyiwut image yi Médina yi ñuy foyee fa sama baay bu tedd bi daan jaar ak ñi fi jaaroon bugg a foyee Médina danaa fa jaar ak ñoom mi ngi noonu muy nag ak ak artu ak dànkaafu wàllum politique bi dem xooli ji itam euh, ñeneen euh, coalition bi di yeewi askan wi euh, nag noppi na rek jamono ji ngir nag toogal askan wi ca pencum ndaw réew mi ci gën di toogaay lu ni mel nag seen mandataire bu diwaan bi moo ko daal di xamle gannaaw itam nag dikkam fii ci région bi nee na nag na mu fekkee coalition bi ci toogaay dal na xel Malick Gakou ak Cheikh Ababacar Dieng. sama xol sedd na bi ma ñëwee fekk fi responsable yoo xam ne nii ku ci nekk jóg nga ci sa parti ci sa mouvement wax nga jóg nga pour réunion boo xam ne nii bu am solo la ci réunion bi nag wax nañ fi problème yi yi nga xam ne nii moo ngànk région de Kaolack ci département yëpp ci commune yëpp waaye bu neexee yàlla ci nekk ci ñoom ci responsable yi jël nga engagement ne la moo ñëwaatee fii daañ jël parrainage mat sëkk teg sama loxo ma yóbbu ko yokk ko ci yi nga xam ne nii mooy parrainage national yi am pour que coalition yi askan yi mën a participer au la ci élection yi di ñëw gagné baaxul li ko lottal ñëpp xam nañ ko mooy ñàkk jox askan bi ak ak yelleefam ci li mu moom ci réew mi loolu nag la yéewi askan bi di xeex ak ay te bu neexee yàlla le 31 juillet bu ñu gagné élection yi Saloum dina am beneen kanam xar kanam bi nga xam mooy taaram ndaxte taalu Saloum mooy dafa jag la taar bu rafet la ndaxte Saloum dafa war a am contribution bu am solo ci yëngu-yëngu yi nga xam ne nii koomu réew mi moom la war am te xale Saloum wax nañu ne pare nañ pour loolu jigéen Saloum wax nañu ne pare nañ pour loolu magu Saloum wax nañu pour loolu fii nga xam ne nii nag dëkku diine la dëkku xeexkat la dëkku liggéeykat la képp kuy defar sa Sénégal ko maati Saloum mën nga yaakaar ne di am dam te dam loolu lañ yaakaar am ko ci Sénégal njuuj ci la dëkk parce que njuuj njaaji réew mi moo tax ñu toog ba tey président daal di yeewu daal di ne léegi da xaaral ma xalaat xale Sénégal waaw naka la président ñu dénkal la réew nga jiite ko pendant douze ans fukki at ñaar nga yeewu daal di ne damay topp doo xëyu xale yi waaw fu mu nekkoon fukki at benn yëpp ak fukki at ñaar yëpp fu président tey nga ne da ngay toppatoo mbiru Sénégal waaw président boobu lan ñoroon fukki at ak yi mu yore réew mi te président boobu ñu ne warul am mandat bu ci topp ñaar mu am mooy mi ngi jël ay initiative troisième mandat mais troisième mandat du fa amee ndaxte Sénégal troisième mandat waru fa am loolu moo tax bu neexee yàlla yow askan dina taxaw jàkkaarloog président de la république ak gouvernement am bokk yaakaar bàyyi bàyyi ne leen Sénégal pare na ci yéen daañu taxaw pour liggéeyaat Sénégal te liggéeyaat Sénégal boobu lépp loo xam daf ko laaj fulla ak fayda moom la laaj bu neexee yàlla coalition ko def pour Malick Gakou daal dina cay yokku ne élection locale yeeg li fi xewoon nag umpu leen yëg nañu ko ak ak njàngat la ca ñoom waaye itam nag ma ngay xamle ne taxawaay bu bees dina amaat te it nag ci lu yàggul dara ñoom kilifa yi nga xamee ne ñoo faree kaw daañu dikk rek fii ci diwaan bi ngir penco mbiram coalition boobee ak it législative yi ñu ah, dëgmal ay kàddoom ba tey ak Cheikh Babacar Dieng. président Macky Sall sax mënu ma ko digal dara lu dul ñu defaraat Sénégal waaw Kaolack nag li fi amoon dafa am xaajoo bu mat sëkk division bu mat sëkk responsable yi ànd ñu woon parce que géejawaay ga dëkk dañoo bokk ndey bokk bay ànd gagné Dakar dañoo bokk ndey bokk bay gagné Kaolack nag loolu amoon na fi problème bu rëy rëy ba coalition am ay ma dajal léegi ci nekk ñoom yéeg nga jóg nga yëkkati sa loxo daal dina ñun taxaw nañu pour créer les conditions de l'unité maanaam waa Kaolack yi jël nañu engagement dañuy bokk ñoom ñëpp bokk ndey bokk bay ànd maintenant li ñu des mooy fii ak ay fan leader yëpp daañu ànd ñëw fii dinaa fi ànd ak le président Ousmane Sonko le président Khalifa Sall président Déthié Fall le président Cheikh Ahmed Tidiane Diop bi nga xam ne nii mooy représenté le grand marabout Seydou Moustapha Sy ak tous les leaders de la coalition Yewwi Askan ñu waxtaan ak askanu Kaolack wax leen li ñu dëgmal bu ñu jëlee réew mi pour defar ko fii nga xam ne nii ci Saloum te Saloum mooy xolu Sénégal moom ci régime bi ñu toll nii lu jafee xeex la parce que régime de fraude la am waaye bu ne xeex la lu ñu fraude fraude mënuñu fraude bëgg-bëggu sénégalais yi lu ñu fraude fraude mënuñu fexe ba sénégalais yi li ñu bëgg ci changement le 31 juillet ñu am ko boo tax ñu am yaakaar ne daañu xeex sur le terrain taxaw taxawaay bi nga xam ne mën war a taxaw que le 31 juillet lii yi bëgg ñu dëgmal ko ci élection yi dëgmal ko ko ci résultat ñu woy euh, ba tey ci euh, jukkim xabaar yi ci kàllaamay ko cu ci yaatal daal di àddu rek jëmee ci wàllum njàng ak njàngale association euh, bii di nag nous pour tous pour l' éducation et le partage ñoom nag ña nga doon amal rek ab yëngatu jaarale ko nag ci ab pose premier pierre maanaam daal teg xeer wu njëkk woo xamee ni mi ngi soxal nag ab complexe bu yëngatu ci wàllu wàllum njàng ak njàngale ak formation professionnelle lu ni mel nag gisoon na rek teewaayu maire bu Mbadakhoune may dikkaat nag ci li nga xamee ne moo di taxawaayu boobule association. Diong Imam Assane Maroon mi ngi ci micro noir bi wax ne tey dañu teew benn ci activité wu association nous pour tous pour l'éducation et le partage te loolu dafa ëmb lépp parce que li ma wax léegi mooy ko ñoom ba depuis ba ñu tàmbalee dañu jël en charge nit ci boppam mais nit ay dimension yu bari la nit nekkul yaram kese mais nit aussi li nekk nit ki en réalité ci ay pàcc yu bari nga koy fekk pour motal ñoom bu fekkee ne dañu jël en nit ki ci yaramam fisikam am fexe ba nit kooku bu amul lu mu lekk am ko bu amul lu mu naan am ko su bëggee faju faju fexe ba nit kooku bu bëggee jàng-jàng mais fexe ba nit kooku su bëggee xam nu ñuy liggéeyee mu xam ko mais en ce moment là bu ñu paree ci nit kooku dañuy defar nit bu mat bon nit ku mat yombul mais loolu mooy objectif bi pour defar nit ku mat kooku nag faw nga laal côté bu nekk loolu nag la ñu nekk di def dañuy jàngale dañuy yar dañuy dundal mais dañuy former pour que nit kooku bu paree nekk benn citoyen modèle boo xam ne mën na def dara pour suqali boppam d'abord mais pour suqali ay famille pour suqali dëkkam pour suqali réewam loolu daal mooy seen mission te ci loolu lañ leen pare seenug euh, mission boobee nag Imam Hassan Meroune bokk na ca rek la tuddee nag tabax tàggat moo ñaalee ndaw li euh, ci loo xamee ni itam nag mi ngi soxal xalaat ak ubbeeku goo xamee ne euh, dina ko yokk wàllum teef mu ñeel ëllëgu réew mi ay kàddoom ba tey la ñu yaatal ak noam yaay xam nga nit ku ne ak réew mu ne dafa am lu mu bëgg tabax yan façon ngi doom la bëgg a tabax faw mu xam loolu te loolu ça se décide sur le plan institutionnel xam nga dafa am ñun école boo xam ne dañ ko donn te boobu li mu doon créer mooy ay fonctionnaires yoo xam ne dañu fiy tubaab yi di leen di waxal li ñuy wax ñu la koy jottali nit ñi mais loolu nag dafa dem ba daanaka bëgg-bëgg bi weesu na loolu ambition yi weesu nañu loolu li ñu bëgg mooy benn ab doomu réew boo xam ne lu ñu soxla ci réew mi doomu réew bi mën ko def te ñu soxla jéggaane mais loolu nag ci njàng lañ koy jëlee ci formation la ñu koy jëlee et moo tax boo xoolee sax même ci njàng mi dañu lay wax ne nekkatul récité nekkatul tari mooy li ñuy wër ci xale bi mais li ñuy wër ci xale bi mooy mu mën a def mën a def dara te pour mu mën a def dara nag faaw am ay compétence xam nga boo jëlee nit nga ne sama courant bi dafa nga woo ko defar courant bi mais c'est parce que kooku mën na def dara boo amee jaaxle ci sa tool nga woo benn technicien laaj ko ci ay xam-xam mu wax la ba yow jàngoro yi say garab amoon ñu faju mais c'est parce que kooku mën na def dara waaye nag boo jëlee benn littéraire bu bind ay roman yu bari wala rek muy bind ay poème yu bari lu mu neex neex neex boo ko nee sawaay man am naa jafe-jafe ci lii wala ci lale xanaa mu ne la sa maam moo nekkoon diw góorgóorlu la ci nangam nangam mais finalement du la indil dara lu bees du benn valeur ajoutée. mu di euh, maire bu euh, mbadaxul dañu daal di àddu rek jëmee ci euh, leneen ndimbalu takko takku nag ci ay ceeb ak i suukar la sëriñ daara yi nga xamee ne ñoo faree ci diwaan bi nag daal di nangoo rek ci loxol équipe municipale bu Kaolack bi ndajeem joxe ma nag ni ki démb la woon rek ca kër de ville bu Kaolack ka ñu dénk nag wàllum social ca boobule maire yi di ndey Lobe Lam nee na itam nag lu ni mel du guleet rek ñuy jàppale daara yeeg néew di doole yi ak ñi ko yittewoo ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. lii daara yi jël ko tey mooy loo xamante ni yàgg na di ko def ndax yaakaar naa bi mu nekkee président chambre de commerce ba tey gis nañ ni feet bu jot day jàppale ñi nga xamante ni ñoo ko wër ñi nga xamante ni ñooy communauté bi te mu jàpp nañu néew doole lañ te war nañ leen jàpp ci loolu ci la ñu yëkkatee lii nga xam ne def na ko mooy utal leen ay jëfandukaay muy ceeb ak suukar jàppale leen ko ci feet yi di wax ne rek xëy na du korité bi rek feet bu nekk ak la muy tombeel ak acte yi ciy def enveloppe teg ko ci sama loxo ne ginnaaw Kaolack fi ñu nekk bëri na ay néew di doole te faj bi daf cee am solo lool ci enveloppe boo xoolee lu tolloo fukki nit ba fukki nit ak juróom yu nekk ci situation d'urgence yore kii boo xamante ni bu leen jàppalewul du sotti ñooñu lañ njëkk a visé fekk leen ci hôpitaux yi fekk leen ci seeni kër jàppale leen ba ñu mën a faju ba génn ci loolu beneen bi ci des mooy ren catholique yi bi ñu nekkee ñoom itam ci seen fête keroog jeudi li mu njëkk a def mooy dégager cinq ci ci ñaari jàngu yi yeneen yi ci des ñu jox ko ñi nga xamante ni dañu ñëwoon ñaan dimbal ci moom mu jàppale leen ñu toog fi ay fan yoo xamante ni itam ah, ceeb boo xamante ni ak diwlin yuñ ko jox ay famille yoo xamante ni leer na seen loxo jotul seen ginnaaw ci koor gi loolu it def nañ ko fii fan tuuti danañ ñëw ci ñi nga xamante ni itam ay néew du doole lañ war a dem ci feetu korité te xëy na seen loxo jotul seen ginnaaw loolu yëpp di wone rek dimension nit ki nit ku am yërmande la nit koo xamante fu mu nekk bëggul gis nit nit ku nekk ci ay tolof tolof donc bu yoree mairie yaakaar naa doon def démb ak bër ci démb ay action day gën a yokk day gën a yaatu waaye yaakaar naa du gën a néew. xayma ci koppar bu bari bu ay. xayma yëpp nag duma ko mën a def mais lenn lu nekk xam naa li nga xamante ni loolu la ko kute. Ndeye Lobé Lam dañuy des ba tey nag ca loolee ka nga xamee ne nak ne moo jiite rek fédération bi takkee sëriñ daara yi nee na itam nag sëriñ Buup wane na yoon bi dëggalaat taxawaay bi nga xamee ne am na ko ci Lamine Fall nee na itam nag ndimbal li dox nag waxtoom ndax lu ëpp nag ñetti téeméer ci ay daara daañ ca jotee kàddu ya rotal ak Cheikh Tidiane Diagne. waaw ndimbali moom dund la ceeb ak suukar comme ni ko ki ma jiitu waxee président Serigne Mboup moo yàgg yëkkati ndimbal di ko jëmale ci daara yi boobu dara xewul surtout ci jamono weeru koor depuis fukki at ak ñaar ñu ngi koy def ren aussi moom la tollantiwaat ndax xam nga xam ne ñi soxla ndimbal téeméeri goro sukkur yu 5 kilos jox ko waa daara yi man ñetti téeméeri sëriñ daara dinañ bénéficié wu ci ndimbal loolu ci kaw la incha allah. fu mu leen fekk ak euh, ban appréciation ngeen di jox acte bi. appréciation bi moom mooy li ñu daan wax daara alxuraan yi daara réew mi la la daara communauté bi la communauté bi ñoo ko mën taxaw su ñëpp defee rek moom mu sotti mun nag wane yoon parce que lii nekkul ne weeru koor rek la koy def waaw yu bëree bëree bëri ay ci wàllu dund ak yu ni mel ak ci même wàllu dimbali leen ci wàllu formation yooyu yëpp ay mébét la yoo xam ne mi ngi ko am am na ci yoo xam ne mi ngi koy tàmbale donc may wax ne wane na yoon nga daara ji moom dëgg la formation la waaye dafa xaw a soxla ndimbal parce ko loo xam ne wane yoon ñu ngi lancé appel aussi nga xam ne ñoo yàlla ne bëgg nañ lu baax nga xam ne daara ji itam xam ne ku bëgg lu baax boo koy jógale sa doole da ko am koo xam ne kii dem dimbal doomu aadama rek moo la tax a jógit foofu itam dimbali ko ay ndaw ñoo fa ne ak ni ñu néew doole. xibaar yi ci Alfayda. yegg si euh, nañu nag ci euh, reportage yi nga xame ne bés bu yàlla sàkk dañu leen koy euh, jagleel te mu aju rek ci wàllum koor gi junjoon naa leen ko tey jii nag la ñuy waxtaanee mooy suukaru koor suukaru koor googee nga xamee ne sax ne da daan rataxal ak neexal sëy waaye tey jii nag lenn ci jigéen ñi yóbbu nañu ko foo xamee ne ma tàmbalee jur ay jafe-jafe lu ko sabab ak it nag yan njeexital la mën a indi rek ci sëy beeg dëkkin bi tontu li ci bile reportage bu Alioune Badara Diop. wàllum suukaru koor comme ni ko wolof Njaay di waxee lu yàgg dëgg la bind mbir mi lee doon loo xam ni suñuy maamaati maam ñoo ko doon def kon mun nañ wax ni mbaaxu maam la ci ab fàttali suukaru koor doon na ab teraanga boo xam ni day jóge si ndaw si dem ci ki nga xam ni mooy goroom ngir kat jéem a rataxal diggante bi wante mun nañu wax ni loolee day neexal sëy donte sax doon loo xam ni du diini aada la ginnaaw bu ñu sukkandikoo ci kàddu ki nga xam ni mooy Awa Diagne loolu day dañ ko daan def rek pour rataxal diggante goro ak sa jabaru doom waaw xam defar yëkkati teraanga jox la dafa neex lool waaye nag du loo xamante ne nag da nga koy forcer nit ki yoo xamoon sa doom am na ko wala am te léegi jigéen ñi jël nañ kook doole ba nga xamante ne kujjee lañ ko def daal soo ko deful sax xeebel day am wala ñu di la xas yóbbu ko daal ci dimension bu mu yeggut mu doon loo xam ni rafetal kese lañ ci jublu jëmale ko ci seeni goro wante mbir mi lii day faral di jur ay coow ci wàllum kujje ndaw si lee moom donte sax nangul wax turam wante indi na sa ab jàngar bu yaatu yaatu. proposé ci kaw tey nga def ko xanaa da ngay am yéene rek xam ne yaa ngi ci kër gi di sëy lii at ba at la nga am sa yéene am sa teraanga war koo joxe ndax loo fekk la waaye nag du loo xam dañ koy imposer benn jigéen ndax kaay jox ma suukaru koor par force amul fenn da nga gis nag koo xam ne des fois du am mais ay parents moom yaayam moo koy jàppale si néegu sëyam lijjanti jox ko am ñoo xam nag seen jëkkër yàlla may na leen ñu jox leen ñu dem jënd am am ñoo xam ne nag dañuy liggéeyal seen bopp am seen xaalis def waaye nag du loo xam dañ ko forcer kenn teguñu ko kenn te waxuñu kenn te mu def lu manut ku amul mun nga muñ parce que korité nga ñëw même bu dul koor sax nga am sa yéene sa teraanga sax teraanga du tuuti te nga yéene nit ki rek jox ko ni ko ah lii kat suukaru koor la ndax boobu dama jég mais loolu su amee tamit yow yaa war a am xel yéen jeeg gi fii sëy parce que doole yamut yàlla moo séddalee noonu sa morom bu ko yàlla cëralee la te jëralee la loola nga daal di bëgg ni li mu def dinaa ko def te xamoo fu mu jëlee alalam da ngay di soo bu jamono da ngay dox ànd ak moom lii lee góor ñu gis ne dafa soppeeku bu baax wante dañ ciy faral di gis ñoo xam ni dañ ci ñàkk sax seen sëy ah jamono day dox jamono dox nag su ko waaye bu njëkk ba suukar lañ daan def tàndarma léegi nag jamono moo dox ba yegg si foofu ñi am jansineer jënd jansineer ñi amul jansineer jënd seeni vaal ku amul vaal jënd vax sans départ kenn ku ne fa sa foos toll waaye loolu moom jaru tas sa sëy xalaat yee uute rek waaye loolu moom jar sa tas sa sëy ndax boo jaalaajee sa jëkkër lu mu la ko jox mënoo sa bopp. si bu njëkkoon suukaru koor ràññe woon nañ ci si mel ni suukar ak tàndarma ak yeneen yoo xam ni lu ñu jëfandikoo la wante léegi di mbir mi la dafa soppeeku lool sax naam sax doole yemul wante ndaw si moom lu mun a def ba bégal ay gorom ngir kat gën neexal néegu sëyam dina ko def bu ñu sukkandiku ci kàddu askan gi lee wante ci fàttali li la doonul diine wante aada gu rafet la ndaxte bokk na ci li rataxal diggante yi lee. mi ngi noonu ne suukaru koor ma nga koy jur rek ci biir askan wi ñu bàyyi suukaru koor daal di tabbi ci yóbbalu koor moo Oustaz Mohamed Sow fa ñu tegoon suñu baaraam ni ki démb nag la ñuy wëyal rek muy saar ba nga xamee ne moom la ñuy dàkkantale jur yi ñu lu waxtaan week soxna Ndeye Fatou Cissé. lan la saar bi di jàngale. saar bi Cissé bu muy jàngale mooy tawxiid ci saxal pas-pas bu wër wéetal borom bi subhaanahu wa taala waaye ak delloo ak tontu cànkuteef yi nga xam ne ak réer yi nga xam ne bokkaalekat yi ak yéeféer yi ñoo nga ca ko itam saar baa ngi jàngale ne kon nu ñëwee ci sunna aussi mu ngi jàngale ne képp ku def benn bu baax yàlla fay la fukk yu baax képp ku def benn bu bon yàlla benn bu bon képp la lay fay kon loolu mu ngi wone yërmande yàlla ak mbaaxaayam saar bi ci wàllu tawxiid ci wàllu wéetal yàlla commencement bi lool la digg bi lool la fin bi lool la borom ne yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal sama julli yi sama rend yi ak sama dund lépp faf ak sama dee yàlla moom kese moom nga xam ne mooy buuru mbindeef mu ne laa sharika la du ma ko ci bokkaaleek lenn julli yi kenn amu ci benn cër mbaa lu toll ni benn ak fell waaye sama rendi ak samay julli samay tabaski ak rendi yépp waaye uli mu fa yem ak sama dund lépp faf ak sama dee yàlla dong la ñeel moom mi nga xam ne mooy buuru mbindeef yi laa sharika la duma bokkaale moom ak lenn loole lañ ma digal ci loolee laa nekk njëlbeenu jullit ñi mu ne moo keneen ku nekkul yàlla lay jàpp def ko ak buur te tuuru lépp mu ne tekki ne wala kullu nafsin illa alayha amul benn bakkan buy def dara ci jëf nara jëf yooyee ci koom lay këpp moom moo ko moom ci dee lu baax moom moo ko moom waaye bu dee safaan ba ci moom lay këpp mu tegaat ci ne amul kenn kuy gàddul bakkaaru kenn ku ne sa bakkaar yaa koy gàddu te yéen ñépp da ngeen bokkuwaat dellu ci seeni boroom boroom bi jël wala xabaar leen solo leen nettali leen xamal leen li ngeen nekkee woon di wuute ci àdduna kon li saaru gàtt yi xabaar yi bitim réew ña nga ca ñaareelu xaaju euh, xibaar yi ca roppalaanam la ñuy euh, dugg Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf euh, Ngoné Ndiaye ren xibaar bitim réew dañ koy dooree réew bu Afrique du Sud ginnaaw mbëndu métti bi nga xam ne moo leen daloon ci fan yi weesu ki nga xam ne moo njiitu gouvernement bi moom moom lay joxe na ab ndogal ngir kat ñu saytuwaat yenn ci ay matériel yoo xam ne jot nañ ko ñàkk ci li nga xam ne mooy mbënd moomu la wante setaraal li nga xam ne mooy gox gilee ci fàttali mbir moomu mu ngi am fi nga xam ne mooy Durban bokk ci penk réew Afrique du Sud ñoom moomu la mën nañ wax nag wàllum inondation ak nag suuf su yëngatu dafay bëri lool ba tax na ci semaine yi ñuy weesu bëri na ay doomu aadama yoo xam jot nañ ñàkk seen bakkan luy tolloo ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett wante bëri na lool ay doomu aadama yoo xam ne jot nañ ci réer booba léegi mënuñ leen loolu waral kii di bi di Cyril Ramaphosa defoon na ab jàngat bu yaatu yaatu ci altine bi ñu weesu fukki fan ak ñett ci weeru avril xabaar yi bitim réew mu Nigéria ñi nga xam nañ opération ci réew yi mel ni Niger ak fi nga xam ne mooy Cameroun ngir kat jéem a neutraliser ñi nga xam ne ñooy yi nga xam ni dañuy nekk foo def ay ñaawteef ci gox yi ni mel ginnaaw yenn ci ay bombardement yoo xam ne dañ koy faral di nemmeeku ci booru Lat Tchad ak yenn ci état islamique bokk ci Afrique sowu jant. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Maroc wax ci dundu gu cher gi nga xam ni moom moo fa am ba tax na ki nga xam ne mooy njiitu gouvernement bu njëkk bi weeru avril bi ñu weesu ngir kat addu ci li nga xam ni mooy yokkute dund gi foofu ci réew bu Maroc ak li nga xam ne mooy carburant bi wante mën nañu wax ne lu duppee ci li ni mel mooy ni gouvernement bi dina jël ay matukaay mat sëkk ngir kat jéem a wàññi li nga xam ne mooy dund gi ngir askan bi mën a amaat dund gu mucc ayib. xabaar yi bitim réew. dem ba réew bu Washington wax ci annonce bi nga xam ni def nañ ko ci wàllu sommet mondial bi doon addu ci li nga xam ne mooy mbas mi di Covid 19 ñoom seen mëbërkat leen la muy jëlee li nga xam ne mooy Covid 19 bi mbas mi ci àdduna wërngal këpp ba tax nañu jàpp mooy fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi ñu dënmal bi di covid 19 xabaar yi bitim réew jeexali xibaar bitim réew ak élection présidentielle fële ci réew bu France ci diggante Marie Le Pen ak ki nga xam ne mooy Emmanuel Macron ginnaaw ci ab ndaje boo xam ne kii di Marie Le Pen amaloon na ko doon àdd ci defetam bi nga xam ne jotoon na ko am ci atum 2017 mbir moom la doon loo xam ne di si jële ab njàngat bu yaatu yaatu ngir ko jéem a daaneel ki nga xam ne Emmanuel Macron ci njiitu gouvernement bu France France. xabaar yi bitim réew. jërëjëf soxna foofu lañ yem ci li nga xam ni muy xibaar bitim réew yi kenn dala jàmm. Barak Bago xabaaru eh, tàggat yaram sëriñ Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ngoné Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu mbokki auditeurs yi dina ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy doore ak éliminatoire CAN Côte d'Ivoire tirage au bi nag amal nañu ko démb ca Johannesburg ci réewum Afrique du Sud fukki groupe ak ñaar dañu tas nag ci groupe A bi Nigéria moo nekk Sierra Leone Guinée Bissau ak Sao Tomé Principe groupe B Burkina Faso groupe D Égypte Guinée Malawi ak Éthiopie groupe E Ghana Angola Centrafrique ak Madagascar groupe F Algérie Ouganda Niger ak Tanzanie groupe G Mali Congo Brazza Gambie Soudan du Sud groupe H Côte d'Ivoire Zambie Comores ak Lesotho groupe I RDC Gabon Mauritanie ak Soudan groupe J Tunisie Guinée équatoriale Libye ak Botswana groupe K Maroc Afrique du Sud Zimbabwe Libéria groupe L Sénégal Bénin Mozambique ak Rwanda Sénégal ñu waxtaanee football ca dend ko Europe tey fanweeri bëccëg bekk ñett Ligue 1 ca France Monaco ma laaleka Nice bu juróomi waxtu jotee Bordeaux di laaleka Saint-Étienne bu juróomi waxtu jotee Lorient di laalek Metz ci boobu lay waxtu Reims di laaleka Lille Troyes di laalek Clermont bu juróom-ñaari waxtu jote Brest di laalek Lyon Lens di laalek Montpellier Angers di laale ak PSG Strasbourg di laalek Rennes Marseille di laale ak Nantes fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñett benn waxtu jotee ba tekk ñeent fukki simili ak juróom fanweeri bëccëg bi Premier League foofu ca Angleterre Newcastle di laalek Crystal Palace bu juróom benn waxtu jotee ba tekk ñeent fukki simili ak juróom Man City di laalek Brighton bu juróom ñaari waxtu jotee démb diggante Liverpool ak Man United Liverpool moo ko tëcc tëcc yu metti ñeenti bal ci dara daal jël nag li nga xamante ni moom mooy bopp classement bi ak bitu Sadio Mané fanweeri bëccëg beeg ñett Liga espagnol juróom-benn waxtu jotee Osasuna di la rek Real Madrid bu juróom-ñaari waxtu jotee ba teg fanweeri simili demi-finale coupe d'Allemagne Leipzig moo laa lekk Union Berlin demi-finale coupe d'Italie retour Juventus moo laa lekk Fiorentina bu juróom-ñaari waxtu jotee démb nag Inter Milan moo lapp-lapp metti Milan AC daal dem ca finale bu dee lu soxal fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñaar Udinese moo laa lekk Salernitana bu ñeenti waxtu jotee ba teg ñeent fukki simili ak juróom ma ngoog ngoone jaay gannaaw ba la ñaanalee kandaayu jàmm la fa si xibaaru tàggat yaram yi xibaar yi ci Alfayda. ñu daal di euh, wéyal xibaar yi dalal ko moom Bara Diop ci kooru gay moolum géej. kooru gay moolum géej o xaaj Ibrahim gay fukki fan ak juróom ci koor gi du benn bu gay làqagum démb yëf sori woon na ci moom waaye jàppam ba moomu jarax tey jile moo ngi waat ci koor gi waaye xelam wi lay fooye ne mënu cee génne lekk information yi ñuy jàllale ci rajo bi sax lu ci dul lekk mu boloke ay marché jën jaaykat yi ci mbedd mi o DG du tax lii lépp faw nga war rek naka mu xam ko naka la ko sànjaafoo teewut moo ngi muñ rek <laughs> toog biroom taal ordinateur am dugg ci youtube bi di duufal ay gëtam ay palaa yu bakkane lekk gune gay visité di xor rek di taxamte ko ah ay bu taxtana koor gi ah, lii ci o DG moom cundum ci bureau bi comme ku yenu dàll yi youtube ba moo koy wéttali bépp site buy wane lekk DG nemmeeku la naka mu toog tuuti rek su fi joor jeu concours o DG ba mu muy dugg sax euh, tayu ko ne lekki la xel mi dem bëgg gañe ci bi tax mu tàbbi ci ligne bi di lekk ga mooy li ko yitteel ci murtad léegi ndogu mbaa xëpp boo jëlee ngay defar sa salade def sauce vinaigrette bu baax tax ba <laughs> foo mu tudd ganaar yi ganaar gi nga def si murtad bi ko war ko lakk sa fuur bi oh. mm. <laughs> ku ko ba muy laaj lu lislaam wax. ku li lislaam wax xam nga ko jërul di laajte. saa yi nag laay ah. oh, géej. nii la nekkee dundam lépp lekk ak naan la moo tax weer wi weeru diis la ci moom te kat weeru yërmande la ne fukki fanu yërmande yi dal dinay jeex ñoo ngi toll ci. muy fukki fanuk njëggal yi war a dëgmal fukki fan goreel ci safara xaaj ibrahim yëf yaa ngi koy ci benn ak benn tax bu xalaatee lii rek xelam su reeti suy rankoñam di wadd du ko tin ne biir bee ko tooñ o DG jooy yu metti la nekkee tey jile ajaratu sawda dal dugg si DG noppi wut ndeke li gën a yàggal jooy yi lu roogaat rek DG taataan ci làmmiñ bi ajaratu mag la tax mu jëli action yi xaaj ibrahim xawma lan la ngay dof dof lu nii yow sa rankoñ yi di rogaat yëpp ak ci biir gémmiñ gi di naanaan ndox DG nga ne doo ma ko wax ñaari lan Haj Ibrahim boole bu ci wax ci la ba tëmbu su ndoxam ba noppi teg ci sala comme yaa jàng woon bàkkaar bàngoog nga gàddu ko li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf ci euh, yéene kaay yi mbiram El euh, Omar Cissé lay laan bikum sage femme ya nga xamante ne fa ñoo sàgganee woon astu soxna ma waroon na wasin ba mu mujj faatu ñeent ca sage femme ya jàpp nañ leen tëj kaso yeneen ñaari sage femme ya fa ñoo hëmb ba diis loolu moo leen musal waaye ne ko noon fañ leen di tëj kaso léegi ko yéen kaay ñi ko xamal le quotidien yéen a kaay dëggal ko ne hôpital bu Louga astu soxna ma fa faatu woon sage femme ya nekkoon ca hôpital ba ñeent ñaa ngi ca kaso ga la ñuy jàkkaarloo ak àttekat ba ñiy jàkkaarloo ak nguurug Sénégal mooy waa kër ni mel fa ñuy xamal geraw ñetti fan tey lañ koy tàmbali l'observateur moo ñu ko xamal waa ànd gësëm ñooy gësëm tey ci àllarba ji suba ci alxamis ji médecins yi yëngal ajjuma pharmaciens yi tëj seeni pharmacie lii yéene kaay yi ne ànd gësëm nag seen geraw bi fa nar a yàgg weeru avril bii ba weeru mai bu jeex rek fa ñu yokkaat su du quotidien na ko ñoom kay ña ngay accélérer gën a teengal seen juróomeelu plan d'action moom lañ dóor ci table bi geraw général ñetti fan la weex ba la 22 avril la leen naqari nag mooy nguurug Sénégal lépp lu mu xaatim ak ñoom fa koo salfaañe fa ñoo a leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy na hôpital la daan teg Macky Sall nee na na seen xel dal ndax faa koy tabaxaat yow seetal si ñaar fukki weer ci lay tabax bi pare ngandum hôpital lay nekk na fay xam juróom benn téeméeru lal ak 34 service ak 24 salle bu ñuy opéré ñu war cee dugal ay milliards alerte yéene kaay di ñu xamal ne essence roppalaan yi kérosène bu ñu wax ne fa manqué sa suñ aéroport ba jëwru ji ñu dénk bi Sophie Gladima fay na ko réunion bu tàng nag moom lañ xamaloon jëwriñ ji nag nee na lu ji njaaga société libyenne bi mooy njaag ñii ngatu ci wàllu pétrole na ko wax nga dëgg nguurug Sénégal bu ko ci kenn wax dara ndax guerre ba ca Russie moo àndi lii lii yéen a kaay moo ñu ko xamal wal fa ji yéen a kaay na leen hé Sénégal daf leen ndànk de fa ñoo tiire bal si suñ tànk yi ndax gaañu ñu ngi wër bato kérosène te amaguñ ko de wax su na ko noog na dal gladiment wér te wër daal mooy jamono ji may wax a yéen nappkat yi ñoom xamuñu essence bu ñu demee nappi jën leer la leer ba mel ni jant tusubaar mooy bëgg-bëgg kujje gi ñoom Ousmane Sonko mooy ëppale député Macky Sall ak ñoom àndal ci wote yi di ñëw su ko defee assemblée loi bu fa Macky andi te du njëriñu askan wi ñu ne ko xalaa mandir bàjjo xalaa xalaa du ngeen ko fi wotee de enquête yéen kaay ne waaye suñ bëggee am loolu ñoom waa yeew yi faaw am ndam lu yaatu mu toll ni seen problème mooy defar seen yi ci département yi le were journal di national toogal askan wi ca assemblée info yéen a kaay di ñu xamal pexe yi Macky Sall rëdd lépp ngir am ndam ci wote député yi a ah, yaaw seetal fa yónnee ay mission biir Sénégal ngir ñi faroog moom dëkkoo woon xuloo ñu juboo ñu ne dee déetewaay mbooloom responsable benn bokk yaakaar boo xam ne fañ laa mbuqi woon ci wote maire yi Macky dàqul leen de fa leen a joxaat confiance ngir ñu jagaruwaat mën a xeexaat te fexe am ndam bi yoon ba tey ci pexe Macky Sall yi fexe na lépp lu mën ngir dugg ci xolu ndawu Sénégal yi ay xëyu ndaw ñeek jokkoo ak Macky lépp fa bëgg ndaw ñi bëgg ko tey ci pexe Macky Sall yi mi ngi nangu ay maire yoo xam ne ci kujje gi lañ faloo andi leen ca wetam ba ci société civile bi gaa yi def transhumant turbine yéen a kaay mel ni kuraan Macky Sall man daal faa foog na fa desee muus daal yow transhumant nangu ay maire ak ay responsable ñu bàyyi kujje gi ñëw fekk si la loolu amul njëriñ ndax ku ko ci defit askan wa fañ lay boole yaag Macky Sall yëpp sanctionné leen duñ leen woteel Idriss Seck doy na ci misaal ba tey yéen a kaay bi ne moo bàyyee gut benn yaakaar ba léegi lan moo ko fa taaj ah yow wote local yii benn fañ ko doon xeex Ziguinchor jiitaluñ ko fi ko naa laajte la mu laaj moom direct news mooy parti yi jàppale Macky Sall ci benn bokk yaakaar est-ce fi mu toll nii amal nañ Macky Sall njëriñ ndax presque ñoom ñëpp sénégalais yi fañ leen a wan ginnaaw xamatuñ mbooloo sénégalais yi fañ leen a weddi a ah, yaaw seetal Moustapha Niass wote maire yi passé fañ kaa mbuqi mbuqi yi métti dëkkam kër ma jëbal ndax kam fa sampoon Abdoulaye Diatta tuut mu ray ko PS Aminata Mbengue Ndiaye xaw tuuti konoon Moustapha Diop ray ko ca Louga fa koo mbuqi ba mu tëdd di ko watat mook Mamour Diallo yëpp donte Mamour na Aminata maqal suuf réew mi Idriss Seck mbooleem ay candidat am sa diwaanu Thiès fañ leen a ngàdd rëkk mbuqi tur ñu dee Idriss Seck moom fañ koo gàccal ndax bureau de vote am sax fañ ko faa mbuqi yéene kaay bi ne waa léegi ñii kon lu leen di Macky Sall di doyee même bu leen mënta dàq tamit na leen wóor ne bët bi mu leen doon xoolee fay soppeeku source a yéene kaay na ko Macky sax fa am lu ko doy ndax partem ba carte ga fa faa jaxasoo ayaw ah, seetal responsable APR yu Parcelles Assainies ña ngay de ba tax Macky organiser ndogu lépp ngir saafara jafe-jafe ya ki nekkoon ci ay jafe-jafe te bés ni ki tey dañ na du kenn ku may capitaine Touré sandarma bi nga xam ne fañ koo kajji dàq ca liggéeyam ndax nee na fa bañ a def lu du dëgg maanaam bañ a bokk ci complot Adji Sarr bi ci kaw Ousmane Sonko moo taxoon ñu ràjjee ko de mu dem ca IAM ne yow fay jàngale nguurug Sénégal ne waa IAM dàq leen ko kii fa ñoo bëgg mu torox ñu dàq ko ginnaaw gi Sénégalais yi sotal ko na ko doo fi toroxee waa mafia kacc-kacc dajaleel ko lu ëpp million jox ko ko léegi nag bi g a neex Barthélemy Dias moo ko def fa jël capitaine Touré muy liggéey ca mairie bu Ndakaaru nekk conseil am ci wàllu kaaraange te gi kenn mënu ci l'évidence yéen a kaay ne waaye man faay laajte aji saar du waxut fi woon ne Ousmane Sonko fa hëmbal waa léegi ana doom ja dara du ca dëgg leer na sénégalais yi moom aji nag ak ñi nga xamante ne ñoo def complot bi tuumal Ousmane Sonko lu du dëgg xam nga fi mu toll lan moo leen desee ñoom yàq deru Ousmane Sonko wax lu du dëgg ak saaga waaye sénégalais yi xam nañ ne yëf yi ay tappale la tàggat yaram Sadio paas bi mu paas moo salaa mu dugal moom la adduna bi di waxtaane ci rafet ba pare mu mujj toll ni moom fa cee nekk stade yéen a kaay ne coupe d'Afrique 2023 Espagne ñoo bokk pool réew mi tàggat yaram di ñu xamal na Cristiano Ronaldo doomam bu góor fa génn adduna ma génn foofu dem ci libération fekk fa PCA bu COSEC yoonoon koy topp de fa ñoo njortu ak këppu kees lu ëpp ñeenti milliards suñu xaalis la ko sooke nag mooy pelant Ibrahima Diop DG bu TDS jëmale ko ci kaw Mamadou Gueye ci wàllu abus de confiance ki fi woyoon confiance Aline Mbaye Ndeer doomam bu jigéen boo mooy tuut ko tëj kaso giiru dundam l'observateur moo ñu xamal ne donte baaje ndeysaan fay na xaalis baak yeneen yi ni mel ndaw si ak band yam xàndal fa ñoo saagam ba waa ma ne Alioune Mbaye Nder nattu njaboot de moo la dal ndax njortu naa ne yar nga ko waaye lii la yàlla dogal ndax yow yaa fi woyoon yaral sa doom su màggee mën laa jëriñ yow moom kii fa màgg teg la ay coona li ci euh, yéenekaay yi Shukran El Hadji euh, Oumar ponk boobee sax nag mooy jeexal euh, xibaar yi dig leen daje nag midi ci kalamay nasaraan ak soxna Ndeye Fatou Cissé benn waxtu naa fi dikkaat yaatal ci kalamay ko ci barma jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi fare woon ci wàllum déglu gi jaajëfal ko du sekk kenn ci wàllum xarale rédaction ci njàppandal gi way leen di ànd ak suñu ay programme ñaanal nañu leen mucc ak muccule jaabi biir ak biti tawfiq ak taysir jàngeen jëfati